information ma ko jottali. dégg nañ le le premier ministre Ousmane Sonko dafa constitué mënuma ko mënuma ko confirmer parce que xam nga ne presse bi ñu am rek bon j'ai vu que ne son avocat sorti au pour pour def. justice Sénégal war na ko mën a defal li xam ne moom la bëgg moo tax mu resté ñu justice donc nous trouvons très normal que man député bi que yow journaliste bi que suñ la tooñee nga bañ a fayul sa bopp nga fi nga war a jaar Madiambal dafay déranger wala non non non Madiambal mënuñu déranger xam nga lu tax mënuñu déranger barki démb yàggul dara lañ doon def lu gën a ñaaw ñoo ngi ko doon def te déranger wuñu donc lu ñu war a def ñoo ngi koy def mais c'est juste que pour diir que ne euh, dañu voté ay loi loi yooyu moom moo ñu tënk pour réguler la société donc il faut que ko ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp yem ci parce que Madiambal tamit bëgg ku ko def tort moom gis nañ ko mu porte ay plainte plusieurs fois n'est-ce pas gis nañ ko mu porte ay plainte ku ko tooñ mu dem porte la plainte man je pense que siège boobu aussi tamit la war a respecté beneen citoyen boo xam ne gis na loo xam ne ñoo koy wax wala di ko def bu nekk loo xam ne euh, neexul a dégg surtout sax ci xale yi parce que nekk ci télé yi saagante wala nekk ci euh, euh, presse bi di wax wax ju ñaaw wax dëgg yàlla ñun Sénégal ak fi ñu jóge war nañ ko mën pour aller de merci euh, kon nag euh, comme ngeen ko xamee dañu fi ñëwoon fii ci Mbacké Bari euh, ci ndigalal président de la République waxtaan ci ak premier ministre am waxtaan ci ak ministre de l'intérieur ñu wax ma ma ñëw représenter officiellement gouvernement bi waaye dama fi ñëw tamit ndax fi laa bokk ndax doom laa ci kër gi taalibe laa ci kër gi ñëpp xam nañ ma mel ak euh, sëriñ bi ak dëkk bi waaye tamit ñu doon ay mbokk bokk suñu aafe bokk suñu gasaan bokk suñu jolof bokk suñu ñaŋe eh, kon bu ñu ñëwee yegsi ci dëkk bi te waroon nañoo sax gën a teel a yegsi waaye xam nañ ne daa toll daa tombeek ziyaara Koyli Alpha xaw a sori lool nag te yoon wi dese naa neex ñu njëkke foofa rek te xam ne fii comme ñu xam nañu heure bi cérémonie officielle bi di am ñu dàkksi ko ngir ab après mën a dem ci jataay bi amal waxtaan kàddu yi nag euh, kàddu yi cant la rek ak ngërëm ndax fii ñëw nañ fi ay yoon yoon ci yeneen anam tey ci anam yi dañu sant yàlla te xam ne tamit lañu ñu fi daan indi ak loxo yi ñu daan tàllal ak bërëb ba ñu daan dugal ñu toog fa ñaan fa yàlla nangu na ko kon euh, ñu dellu siwaat fi tey euh, sant leen gërëm leen di leen wax ñu yokk ñaan yi ba suñu ay yéene ak suñu ay mbébét ci réew mi euh, yàlla antul ko ñu sottil ko mu doon mbégte sénégalais yépp ah beneen bi ci topp tamit bu ma neexoon ne damay ñëw rek ndax Cheikh Thioro parce que yaakaar naa ne ko gis li fi nekk ci mbooloo tey ak gan yi dëkk bi am ah, yàlla def na xëy na seen doom la waaye Cheikh Thioro Cheikh Thioro ñëpp la ñoom moomuñu ko moo tax ah, yaakaar naa ne ñëpp fabu ñëw ngir jàppale ko ci bésu maamam bi waaye moom it fii la dëkk kon euh, Cheikh Thioro rek mënoon na tax ma ñëw kon nag ñetti taxawaayu laa taxawee ba ca des tamit yàlla def ah ma bokk ci département bi di Jolof di département wu Linguère te Mbacke Bari bokk ci Jolof kon euh, yaakaar naa ne damaa ñëw rek sama kër euh, ziar si sëriñ bi sàkkuwaat ñaan présenté délégation bi ma àndal ndax xëy na bu ñu demee ci barab bee mën naa xat euh, ma ñëw fi nag tey ànd ak sama directeur de cabinet mii di Modou Ndiaye ngeen xam ko bu baax mu dëkk ci ngap gi waaye ànd tamit ak euh, gouverneur région de Louga soxna Ngenaar Mbodj ànd ak euh, ak préfet bu Linguère ànd ak kii nga xam ne mooy Ousseynou Ka di secrétaire général SONAGED waaye dëkk jolo nekk un allié sûr ci communes yi nga xam ne gagné nañ ko Jolof commune am ci la bokk te daf ca def liggéey bu mucc ayib muy gasaat waaye ànd nañu ak suñu directeur général Dakar Dem Dikk di Assane Mbeng nga xam ne tey dugal nañ ko ci àll Jolof bi avant ñi ñëw fii kii di suñu chef de cabinet di Kham Ndofène Diouf suñu attaché de cabinet di Aline Diop waaye tamit suñu chargé département de Linguère Aline Diop moo jiite commune Sagata ñëpp xam nañ ko Pastef yore communication wu département wu Linguère Pastef Ardo Fène moo jiite Pastef euh, commune Daara waaye moo yore finance tamit ci département de Linguère ànd nañu ak suñu ay jigéen nga xam ni euh, ñoom ñoo yore MOJIP muy soxna Khady Mbaye Ndiaye soxna joojo waaye soxna Nene Ba nga xam ne Nene Moussa Ba ñoom ñooy waa fête de fête de Fulbe ndax liggéey bi ñu def ci communauté Halpulaar bi nga xam ne dañu bëri fi moo ñu may xëy na yenn ndam yi ñu am ci Jolof euh, su ma limee dinaa juum mais waa Pastef Linguère Pastef ñëpp ñëw nañ ñoom GPS euh, Linguère euh, kenn desul loolu nag ndax Mbàkke Baari màggalu Mbàkke Bari yàlla da ko jagleel Jolof mu doon ci màggal yi nga xam ne wala ci xew-xew yi gën mu am nag lu muy ndax buñ ne Sëriñ Tuubaa bi muy wala Ngagne Demba Touré mais sëñ Touba dañ ne bi muy dem exil doon waxtaan ak njaboot donc mu nekk lu symbolique waaye fii tamit li fi loolu rek mooy kàddu yi introduction yi euh, di jéggalu xëy na am na ñu bëri ñoo xam ne li mu ma leen ndax délégation bi moom macha allah dafa gudd waaw allié yi ñëw nañu nga xam ne euh, waa dem mi ñoom Idriss Samb yabal sëñ imam Souleymane Sow euh, Abdoulaye Dassé Ndiaye suñu allié nekk sama conseil technique tamit mu ngi ci Ousseynou Faye représenté te kenn desul loolu nag li mu firndeel mooy màggaayu bés bi mooy màggaayu kilifa bi waaye tamit mooy euh, liggéey bu rëy bi nga xam ne Cheikh koy liggéey ci parti ak ci Sénégal yëpp nag ndax euh, ca assemblée nationale bu ko demee euh, bëgg kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje ci kanam tuuti rek fële ci cérémonie officielle bi allah